suba degna amat amaat pap degna suba amaat na de ah mais xam nga pap man sama différence ak sénégalais moy man mbeuri ñoomu mënutul nax man wa man mënutuñ man nax mais pap pap li combat la Euh, Modou Lo ak kii loolu combat la waaw ci liñ leen fay yépp waaye nii nii nii daanu ndox va jeex na léegi léegi suba ñu newaat ñu amaat na beneen affiche yendu leen seen télé yi ah avons un stade pour gars yi def prep mais mais mais mais bon sport bon sport rek le échauffement bi 4 heures de temps Bon sport la compétition bi préparation bi di 4 heures de temps la compétition bi def une minute hein football bi gis 90 minutes lay durée. 15 minutes de def Un spectacle bi commencé voilà rugby à ak à ak Parce que 40 minutes là. yaa ngi échauffement bi motul 5 minutes mais làmb gaan bi day 2 heures il hein? balaa muy sëgg 22 heures pendant ce temps. <laughs> non est ce que xam nga ni lu mais làmb mooy tardé xam nga luy tardé ñun suñu tardé mu ngi commencé ci lamb suñu tardé suñu tardé non xol journée bi li ñu waroon mun dem def yëpp balaa ñuy sëgg non pap gis nga ay su lamb ni su gaay su gaay télé jëlé sen direct yoy xam nga ngay yakane lamb ji commencé na 2h xaw 3h Pape si laay dem doxi samay soxla Pape Pape su match waree commencé match ah dinaa seetaan match bi pare dem géej pare lakk jën pare sangu pare def lépp te làmb ji du commencé maanaam jour làmb mu la tere def sa benn activité ndax doo tardé dégg nga doo tardé pap lamb noo lamb doo tardé pap demal ba vingt deux heures fu ngay dem boo ñëwee doo rate dara xam nga xola doo rate dara ndax lamb ji lan la du sëgg bi ah mais non pap pap lamb il faut ñu xool ko te nag bu ma kenn ne lii mooy suñ cosaan du dëgg pap pap pap man dama seetaan ay Double Less pap xam nga ay Double Less ñu nande, ah dañ solo la mbër bi day solo Grand ka. ah ah pap mbër da daan solo Grand ka. waxuma la auto de di dox nit ñi di ko ñun bobu ñuy xalé, ñuy dem arène fas ñun dañuy top ci mbeur mi pap mbeur mi 5 heures la lay rom wala timis lamb ji jeexna na pap déggoo ma de mbeur mi 5 heures la lay rom bu ñu jullee heures ba paré la lay rom ah dem fas balaa timis lamb ji jeex kon xam nga li dañ ko ci bolé mais amu ci won dañ te deug mais boo waxee ñu ne yow nag yow da ngay plané lii suñu cosaan la du suñu cosaan suñu cosaan làmb daanu def deux heures de temps nga naan añ naan ataaya dem làmb ja léegi boo naanee ataaya boo demee stade doo dugg déggoo ma de ah waaw après ñu yëbale la vingt deux heures mais boo demee stade quatorze heures jóge fa vingt deux heures mais boo moytuwul yow doo xëy liggéey ndax vingt deux heures ak circulation bi ah balaa ngay génn stade minuit jot boo ñëwee sangu bay reer une heure du matin jot na doo xëy cest à ñun one est même en de de de créer les conditions de notre sous-emploi Avec du chômage ndax làmb dimanche au lieu ñi 4 heures du matin dem liggéey pas au nga liggéey ngay warante mais pap pap ñun bu ñu papa Papa de pap tubaab day liggéey boobu dugg vocale weekend bi mu dem feetu ji naan bière dem tëddi dimanche bi yëpp muy mais balaa muy jël dimanche day liggéey ba dugg boîte quatre heures du matin Ça, à dire trois heures de temps avant 7 heures dëkk bi day jax fii quatre heures du matin boo fi génnee ba sept heures ba huit heures moins tali vide de gomade pape nous avons un rapport avec le travail extraordinaire on ne travaille pas assez hein on dort en palabre plus qu'on ne travaille et ce mariage vous une langue 10 heures voilà nous nous devons 20 heures on commence commencer 20 heures hein pape basse ak 16 bi day nek fofu ak musique pendant toute la journée ken duko occuper bon 20h tali bi nga barré basse bi nga toute la journée 16 bi nga loué toute la journée mo nga ko bañé rek wara 19h rek ñu brancher affaire yi <laughs> hein pap xana xama man d'accord ma sax ngenté toute la journée mais tant là pap dañ war a woo ñëpp ne leen demi dix heures fekk tudd nañ ñu ne au revoir ñëpp ñibbi mais ñii dañuy ñëw tudd dem ñu toog ba ay deux heures ful bi ñëw añ def nii après ñëw seeyaat ba ay timis ñu ñëwaat reeraat ñetti làng pendant li si des si déroulement journée bi dara du pap ñun dañu war a réfléchiraat pap ñun suñu modèle yi suñu modèle yi benn baaxu si ndax modèle yi day rax ah non modèle yi say xam nga lan mooy suñu problème dañu jël suñu suñu cosaan raxsi bu tubaab raxsi bu indien rax bu marocain raxsi bu américain rax si yëpp mais itam loolu tamit pap doo dem anytime fu ñu ko jëlee waaw ah mais anytime naar yee ko moom dégg nga wax baax te naar du liggéey kat naar du liggéey vendredi du liggéey samedi du liggéey dimanche ñetti fan mais xam nga leen leen may loolu ah yàllaa leen naqal koom bu ñuy woowee pétrole ak gaz dégg wax ju baax yow nag comme que yàlla nàqul la yenn affaire yow ngay jël léegi di anytime mais dañuy feetu ba pare le lendemain du ñu am lu ñu ndékkee xew ba pare le lendemain doo am loo ndékkee waxuma la nag la des ca weer wa mais lu ko fi jar pap man ku may mere ay xew nii ay ñëw ah di nga yàgg mer de non man parce man maa mënul comprendre liggéey taxaw ah nga ne ma non bul dem liggéey ñëwul fii xam man lu may def man en général dimanche yéen su ngeen toogee noonu di seetaan lamb ñi ma war a jaale ji yëpp dimanche laay dem jaale ji leen ah <laughs> non yéen parce que xolo pap man muy ngénte di mariage di dëj mënumaa comprendre may arrêté suma liggéey ah di ci dem te jaale am jaale am na pap mënoo teew ci bés bi lundi mun nga tok ba dimanche nga ñëw ne sigil ndigalé wala ndokalé ci ngenté bi wala ndokalé ci mariage bi wala est-ce que c'est forcé par la force que heure ba da nga wara a hein ah suñu mam yi nga xamné bobu amul téléphone ñoo gis ben wolleré bo xamné un mois après ngay soog xamné ñak bakanam nga def voyage dem jaale ko ah est-ce que yàq na dara si yool bi <laughs> Pape nañ arrêté li ñuy def xam nga tubaab sax ñoom li ñuy def bu kenn génnee àdduna ah suul bi sax yow mun nga ko bañ a fekkee parce que ñoom bu leen neexee sax ñu ne suul bi ñaari nit ñoo koy fekkee famille bi rek ñoo koy fekkee ñu jël benn dat bu sori ñu ne tel jour dañ koy rendre hommage te jour boobu lu nekk heure wu liggéey dégg nga ci baax ñu dimanche bi dañuy organiser añ wala dimanche bi dañuy organiser reer wala dañuy organiser njogonal pour ñëpp ñëw teew ñu defal ko hommage mais Pape bu ñu nee dañuy organiser añ non boo fa ñëwee 16 heures doo fekkati kenn. non añ bi midi lay commencé hier 14 heures 2 heures de temps après ku nekk dem doxi leneen c'est-à-dire tubaab pap mun na def juróom-ñetti activité ci bëss bi xam nga lu tax activité bu nekk dafa am temps mais est-ce que xam nga euh, pap dëkk tubaab bi am na ay boîte yu ubi 19 heures tej 22 heures nga paré dem teudi yow 6h du matin dem liggéeyi pap xamuñu suñ soirée yi kañ lay commencé 1h du matin mané len wa wala 2h mané ma ne leen Pape ba 2h du matin lan ngeen doon def ñe ñu ngi don ray temps bi dinañ ataay mais pap pap deug li limay wax de mais pap gam gam yi ñuy def nii ak magal yi ñuy def nii par goudi jàng mais pap

après nga teg si trois heures de temps minuit jot ñu ne jeex na ñëpp dem yeewu julli fajar mais Pape yow gàmmu gi day dem ba sept heures ci suba ah te gàmmu pour lan la affaire xeetu jaamu yàlla la waaw mais sëriñ bi du arrêté sax affaire bi sëriñ bi du arrêté sax affaire bi pour ñu julli fajar mais pap est-ce que loolu am na sens pap nan ngay defee cérémonie officielle bu gàmmu ba timis jot ngeen continuer Telan lan moo tax gàmmu jóg ah fondamentalement l'islam moo ko tax a ñuy cérémonie officielle ba timis passé ñëpp tok di discours raté timis xanaa timisu man dama yaakaar ni timisu ak geewu guddi màggal am na lu ko gën a rëy julli boobu Pape est-ce que xam nga ni korite ak tabaski julli deux heures boobu gën a wéet si julli yëpp laaj mu lu tax te kenn du ko taw déggoo ma de ma foog bés boobu moo war a gën a màgg pour ñu julli gars yi danañ xëy de. neuf heures dix heures jumaa ja fees del ah waaw jesneer ya tàq yaa ngi dégg ba ca topp bu du deux heures la mooy julli bi si topp jumaa ja boobu lay gën a vide ndax ñu ngi ca xar ya <laughs> pap loolu est na logique ah ñaa keñ day nu waar quoi man dama fu jàpp ni bésu bésu bésu feet bésu feetu diine ah liy priorité bi mooy jaamu jaamu suñu borom moo war a gën a nekk priorité mais jour boobu la affaire bi di gën tum pam pap est-ce que ni ñuy tabaskee nii kenn du ko tabaskee beneen dëkk yenn ko <laughs> ñii di leb ñii di sàcc pour jënd xar ni la xar boko amok, amul amoko ko ah bu la leeree ni sax da nga wara jënd xar te suba do añ bayil xar bi pap pap ñun nak dañoo télé dé non mais quand même te ñu wara waraté wara nit ñi ñu leen pap sama temps jeex na tak kon bu si kanamee lay ruus ca fit ñay woye seen bopp fit te amuñu fit dafay ruus incha allah dinañ ko indi en direct wala ñu def ko léger différé lay xew tamit si marche sëñ Modou Kara bi marche 11 novembre ah tey muy jógee ko fi nga xam ni mooy ñaari station yi nekk fii Castor ah hôtel yi ji naan yëkkati fa ay kàddu incha allah ah dinañ leen topp dinañ topp lépp yaa kon Pape ñu ngi lay gërëm di la sant Pape mais Pape Pape dina la namm si dimanche bi de mais Pape lundi la ñuy dellu si Hein Si public, public. <laughs> xam naa chroniqueurs yi namm nañ bëgg nañ dugg ci chronique bi mais bii moom bu leen sax espérer <laughs> bii moom bu ni bi Doudou Coulibaly rek ay chronique ma <laughs> madame Ndiaye Dakar woon na ma yow xam naa madame Ndiaye dakaar lundi bi su ma ubbee dina ma rek dégg nga ñu wax waaw bu leen nee leen nag bu leen espérer de ay bu samedi bii moom kenn du chronique pap su may def bu samedi bi teel bu baax téléphone waaw ah, da nga koy off amul man rek kay chronique <laughs> ma ñamal leen chronique rek chaque jour gars yi naan léegi ay chroniqueur bëgg a chronique da ngay nekk ci revue de bi sax def ñaari journaux rek gars yi woote nan chronique <laughs> tay njuy naa len mais lundi di ngeen mën woote dugu, def chronique Deng, pap kon mu ngi lay gëm di la sant di la ñaanal samedi bu neex samedi jam ah samedi lo gëna bëgg di agné kaldu man nak euh, ñaaré par samedi ya sa ginar la bëgg di agné mooy yaa sa ginaar boobu di xaw a jaune nii ceeb bi day xaw a jaune xaw a cantonné moom ah moom la ma madame Coulibaly defal ah toggal ma attaaye samedi rek laay am jotu naan attaaya ak dimanche toggal ma attaaya dressel ma table bi def ay jus yu baax dégg mais Pape yow boo fekkoon doo liggéey samedi sax naa la ma sa invité samedi mais Pape yow da ngay liggéey samedi liggéey dimanche ah Pape nag da ngay bàyyi yooyu nag di wàññi affaire ndax mu invité la waa incha allah jërëjëf kon ba